salari jiin bismillahi bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah internet dakar ti ma ngi len di bëggee bu baakha baax di len ziar di len ñaanal jam di ko sàkku ci yéen mu melni ki nak ma ngi fi nga xam ni mom moy foire wala bok ma ngi toga ki nga xam mom moy Baye ndjay Baye Ndiaye borom Alburax Events Baye Ndiaye bi nga xam ne Bamba ñaa ren mën naa ne saison bi ren bi moom macha allah la ñuy wax laf cat yëngal na saison bi parce que mën naa ne VIP ñu ci bëri bëre nañu ñi ci ëpp bu tëggul ñëpp itam tëgg na lu ca baree baree bare tey nag moom laa fa yéenee seet si waxtaan ak moom par rapport ak saison bi ni mu ko ubbeek ni mu ko tëjee ak li muy laat Alaaji Baye félicitation laa lay wax par rapport ak journée yi ak làmb ji euh, di la di la Alaaji Babacar maa ngi lay fay bu baax a baax di la nuyu bu baax di nuyu sa caméraman Bamba mi nga àndal di nuyu waa kër gi yëpp. Mm-hmm. waa Dakaractu fii moom suma kër la. Mm-hmm. suma yëf la parce que sumay kilifa ñoo xam moom ku ci mel ni Serigne Diagne. Mm-hmm. ak Yves. ñoom Bamba ñëpp maa leen di nuyu bu baax di la delloo micro bi ba ci kanam. di nuyu nag suma kilifa suma patron suma sëriñ ñi gën koo xam ci Abdoul Aziz Aly Ndiaye. maa ngi koy nuy bu baax baax di ko jox wàcc waayam. Euh, Baye balaa may sori par rapport ak Dakaractu parce que dañuy toog sax nii même bu dul micro bu dul dara nga di ma wax sa digganteeg sëriñ di ma wax sa digganteeg Yves yàgg Yves ak sëriñ rapport yi lan la. waaw loolu lu yàgg la loolu moom mu ngi jaar ci Dadi Diop la jaaroon. ba tey yàlla di doxal muy konni dox ñukay sam nak ñu mhm. nek suñuy mak nek suñuy kilifa. luma yag yàgg dugg. Mhm. ci événement ci liguey dañ ma ci jappalé dima ci conseil dima accompagner. Mhm. ba bobu tay duggu moon ci lamb di organiser ay lamb ba tey lu ma dugg it nañ ma ci jappalé motax tax ma ne lu dañ ci nek fofu suma kër la. du soxla may am du soxla may am contrat. du soxla may am ben kayit. Mhm. su ma woowee sëriñ ne ne ko grand lii laa bëgg dara ma amul benn problème wax nag gars ñi def ko comme ni nga ko bëggee. Mhm. kon loolu day dama koy sam bu baax dama koy jàpp bu baax a baax. Mhm. kon Dakaractu dafay nekk suma yëf. fu ma jëm dama koy yóbbaale. fu ma jëm damay ànd ak moom. ndax loolu ñoom ñoo ma ko ji kon dama leen delloo ngor gi tey bu baax a baax. am na solo parce que yaakaar naa li koy dëggal mooy interview bi ndax dañ laa bett rek fekk la sa biir kër nga accordeel ñu ko laa preuve kon loolu mooy dëggal li nga wax mais Baye da ngaa dugg ci làmb mais saison ren bi nga xam ne moom moo war a tëj bientôt da nga ko ren par rapport ak quatre journées yoo xam ne journée bu ci ne rek bu ñëwee maanaam danga naan macha allah amateurs yi dañuy man ni làmb ndax bi Baye Ndiaye di ñëw ak Alburax Events di organiser làmb dafa amoon objectif kat gis na lamb mu ne ci benn niveau mu ne xar ma yokk niveau bi indi waat mbë mbër yi nga xam ne gëjoon nañoo bëre mais jox amateurs yi tamit VIP yi nga xam ne bu ñu bëriwul ci saison saison ba du neex. waaw loolu sant yàlla la rek xam nga tey man li may wax chaque jour rek milieu boo nekk rek da ci war a wane say preuve parce que tey su dee da nga dem ci wàllu musique ñi ci nekk ñu ngi koy doxal bu baax. nga dem ci wàllu football noonu course épique noonu kon ñun ñuy ŋànk làmb ji dañ ko war a mën a doxal Babacar. doxal bu tegu ci yoon. xool ñi nga xam ne moom la avantage yi bëgg. ak supporter li ñu bëgg nga koy génne di ko teg ci taable ji. ñun objectif boobu la ñu am. dañu ñëw pour organiser. ay combat événementiel def ay combat yo xamni tay Sénégal yëpp dañuy bàyyi xel amna lu xew te ragal na ni loolu yàlla mu ngi sutural parce que tay li xew ci làmb ji len yëpp ci suñu journal la xewé changement ay am yëpp ci suñu journal la xewé xewee jubluwuñ ci dara nak loolu dëkk bi neex dëkk bi am ambiance tay bu njëkk li may wax bo nekkon Sandaga bu dimanche joté sa xel du dul nekk dem Ibamar wala nga dem Assane Diouf wala nga dem Demba Diop mais dem nañ bu temps yoo xam ni ay deux ans ci ginnaaw wala un an ci ginnaaw làmb ji ñëpp naan dee na man baat boobu daf may déranger. ay làmb ji dee na wala làmb ji dekkiwaat na. man d'accord ma sax ci loolu. parce que warul dee warul dekki dafa war a nekk ci place am chaque jour. loolu moo tax nag alburax dafa ñëw teg ay actes yu am solo xool mbëri yoo xam ni tey dañ daan bëree grand combat nga leen di dugal ci ay. premier combat ñu koy bëree. ñii di bëri ay spécial ñii di bëri ay deuxième combat. mbëri tamit comprendre jeu bi ñu bëgg a def. parce que tamit loo mën a mën a def ak loo mën a mën a liggéey. te ñi ngay àndal comprendre ñu. situation bi day metti xam nga bu njëkk da ngay jël benn mbër ne ko da ngay bëri spécial mooy loolu du ma bëreel diw du ma loolu mu ngi dañ. ñoom ñëpp léegi koo ci waxaale sax ci ban combat laay dugg la lay wax. ndax bëgg bëre. loolu nag soo ko defee mooy tax combat bi am dayoo. combat bi am jëmb ñu bëri dañuy wax da ngay ñëw pour yàq mais du yàq loolu mooy defar làmb ji. parce que tey boo demee ci course da nga gis ñu jël euh, pur sant yi. ak mool deux ans yi. ak nangam ak nangam jaxase leen ñu daw grand prix. tey ñëpp ñu jaxasoo di bëri nag di nga xam kan mooy champion bi ak kan moo dul champion. di nga xam ne kan moom am supporter ak kan moomul supporter. loolu moo tax nag ñu jël affiche yu mag di dugal ci biir combat yi tey boo xoolee Pokola su bokkee journée. Euh, Liss Ndiago ñoom ñaar yu bëri moo dafa mbër Mor Kankang yu bëri ci. Mhm. autre ak yeneen combat yoo xam ne ay combat mag la tey bële passé nga gis tey ñoom. Euh, Albouri Jacob Balde mhm. ñoom ñëpp ñu boole leen ci benn. bébé Saloum nga jël ay euh, ndigal. ndigal way gàkku de jël xam nga espoir yoo xam ni ay mbëri yu grand combat la nga boole nañ ci combat yi mhm. loolu day may combat bi jëm. koy may jëm waaw loolu moo tax saison bi gis nga saison mu demee. moo tax lu waral loolu quoi. Mhm. nga woon ko ci Tafatine ak Eumeu Sène yaakaar naa ci nga commencé bi ngay tëj tamit yaakaar na Tafatine boobu nga tëjee ak Balla Gaye boo parce que Tafatine Eumeu seen moo jiitu après su ma jumul Sa Thiès Eumeu Sène ñëw topp ci Gris Bordeaux ak Ama Baldé Balla Gaye ak Tafatine quatre journée yooyu ak mbër yu mag yooyu nga boole ci benn journée di leen tëgg ay mbëri grand combat budget combat bi tey boo ko doon budgétiser xaalis bi war na bëri de bàyyi. waaw xaalis bi war na bëri mais làmb kenn mënu ko budgétiser parce que tey budget bi bul jàpp ni nga fay mbëri rek la dafa am yeneen dépenses yoo xam ne ay plus loo xam doo ko calculer tey combat looy gën a dem rek mi gën a am tension tey nga war a dem fay sécurité nga war a dem fay sapeur. nga war a dem sécurité boo xam ne da leen di jël ñoo xam ne du ñu nekk ay civil la ñuy doon. communication bi nga war ci dépassé xaalis. tey mën nga bañ a fay mais <laughs> am na détails yoo xam ne faaw nga fay ko. parce que impression da nga koy fay. Mhm. visuel yi danga koy fay. affiche yi da nga koy fay. tirage yi da nga koy fay bâche yi da nga koy fay. Mhm. mënoo ko budgétiser tey dem nañ ba jël mbay ak loom soo yóbbu ko studio pour mu way yooyu ay dépenses yoo xam ni doo ko sóoraale moo tax làmb pour nga budgétiser ko day metti mun nga teg benn budget exemple nga teg 10 millions wala 5 millions ne lii laa ci bëgg def mais da ngay ñëwaat sa kër jëlaat xaalis dépenser waat ba muy dépenser man sama calcul du ma du ma budgétiser naa dem rek na baax rek su demee ba fin ba nag après ci ngay xam yow lan nga dugal ak lan ngay génne quoi mhm. mais làmb yëpp man mënuma la xayma ñaata laa ci def ak laa ci dépensé mais su paree di nga xam tey lii laa ci am wala lii laa ci amul. parce que mënoo ko budgétiser parce que làmb da lay dab à chaque fois da ngay toog sa kër rek xalaat ni lii neex na rek. nga dugal ko ci te lool doo xam foo koy bind. doo xam foo koy bind loolu moo tax pour nga budgétiser ko day jafe. mais ci quatre journées yi ban nga jàpp ne moo ci ëpp maanaam moom nga ci ëpp loo ci dépassé. waaw ñoom quatre yëpp pëf parce que boo xoolee combat Balla gay Tapha Tine ak Ama Baldé Gris Bordeaux boobu tamit. ñëpp ñun ñu am nañ dépense mais départ bi moo gën a moins frais. parce que boobu tafaatin ëmma seen bi boobu dama doon soog a ñëw mhm. da ngay perte ay repères mhm. doo xam fooy teg sa tànk mhm. mais bi ñu ñëwee ci deuxième combat bi nag ci ngay gën a def dépense pour gën a renfort dugal ci ay boy yoo xam ni am nañu public nit ñi xam nañ leen nga jóge fa ñëw ci tafaat euh, Ama Balde. Gris Bordeaux nga gisaat ñu jëliwaat Zos boole ko ak Liss Ndiago jëliwaat ay ñeneen dugalaan ci biir. Euh, Ada Fass comprendre nga. Mhm. nga ñëwaat ci Balla bi. mais yu ñëpp am na dépense mais ñetti combat yooyu daal ñoo ëpp dépense bu njëkk bi ko ñett yooyu moo ëpp dépense bu njëkk mhm. euh, mais ci combat yi maanaam ci journée yi kon bàyyi tey bu ma ko laajoon ndax am na ci satisfaction ci lim ci doon ut ci côté. bu dee weccet la bénéfice ndax gañe na ci mais ci côté tamit plaisir parce que xam naa ne am li nga ciy dugal plaisir bokk na ci ndax am nga ci satisfaction si plaisir ak xaalis. waaw bu fee kay Babacar man fenuma la dëgg laa la ñett yëpp am naa ko ci. am naa ci plaisir. am naa ci bénéfice. am naa ci satisfaction totale. bi ci njëkk mooy man li may wax chaque jour bénéfice bi njëkk ci ci ci organisation mooy jeex ci am ci jàmm jeex ci jàmm. Hmm. parce que tey nga woo ay nit. Hmm. ku nekk bokkul fi mu jugee. muy mbër muy amateur muy journaliste muy sécurité mu ñëpp ñëw seetaan si wuyu si benn nit bu fa dara faxasaloo rek sa kaw lay wàcc te ragal naa yàlla suturaal nañu sutura boo xam ni mbër yëpp ñëw nañ ci jàmm amateur yëpp muy presse beeg ñëpp déggoo fa dara ñëpp ñibbi ci jàmm ba ñeenti combat yëpp jeex ci jàmm bi ci des nag wàllu financière bi man lépp lu ma fay mbër rek damay dana am lu toll noonu parce que damay wut dara parce su ma demee ba natt ni lii su ma ko fayee Babacar du ma am lu toll noonu. yàlla xam na du ma ko fay. parce que tey <laughs> di jox nit ki cent millions te mun a am cent millions loolu moom musiba la. wala di jox nit ki dix millions te munoo ko am jarul nga koy def. loo bëgg-bëgg plaisir tamit. da ngay xool sa plaisir bu bopp. parce que li ngay génn xaalis la ay moyens la da nga koy dem uti fenn ñëw di ko dugal fenn. kon yow war nga ci gis sa bopp. honnêtement nag bu fekkee waxu naa dëgg. gis naa ci sama bopp comme bàyyi tolloo wuñu ay dayoo. tolloo wuñu ay bénéfice. mais gis naa ci sama mbopp vraiment bu baax a baax a baax. xam naa dinañ laa ko gën a détaillé combat bu nekk lu muy génnee. ak lu mu génnewul ak yëpp dépense ak boobul dépense. Mm-hmm. am na solo yaakaar naa kon loolu leer na mais ci biir euh, saison bi gis nañ ne euh, damay ñëw ci côté li nga xam parce que dëgg naa ko mel ni bés mu wax yaakaar naa ne ci côté billetterie jaay ci gise bi dafa mel ni euh, combat Gris ak Ama moo ëppale mais dafa mel bi euh, moo kii Balla ak kii moo ëppale ak euh, Tapha Tine waaw loolu c'est vrai parce que tey combat yi li ma jaay ci billetterie ci combat Ama Baldé Gris Bordeaux moo ëpp li ma jaay ci Balla Gaye ak Tapha parce que bi ma defee calcul Balla Gaye Tapha Tine moo ëpp nag li ma jaay ci pay-per-view. Mm, ci pay li ma jaay ci combat boobu moo gën a bari. ci Balla Tapha ci Balla Tapha mais bu fekkee billetterie Gris Bordeaux Ama Baldé moom laa gën a jaay ko billet kon ngay xool combat bi ku ne amul loppale sa morom loolu nag ci mbër yi la tey ñaari mbër yi man dama def calcul bi ma ni tey Gris Bordeaux li tax mu xaw a faible tuuti ci ci ci PPV bi ñu jaay ñu bari mooy man fi ma koy euh, blâmer mooy mhm. open press moom deful waaw waaw loolu tam daf ñuy joué boo ñëwaatee ci Tapha Tine Balla Gaye li tax supporter Bawol Bawol yi gënuñu à 100 pour cent Tapha Tine tamit deful open press te loolu da lay noyé day noyé communication communication su tawee koo nii rek soo ñëwee defoo benn affaire day wàcc parce que ñaari nit su Balla Gaye jaaree nii def Ama Baldé jaar Pikine def Gris ñëw deful Tapha Tine deful rek day baissé tuuti loolu day day day joué ci vente yi muy billetterie yi muy PPV chaque jour mbër yi dañ ko war di ko def ak shooting mhm, shooting dafa nga sport day dox. Mhm. soo xoolee jamonoy Tafa Gueye yii yëpp amul woon. Mhm. jamonoy Tyson amul woon. Mhm. nit nag bu fekkee da nga tombé ak jamonoy Babacar. wala jamonoy Lutte TV wala jamonoy Albourakh da nga xam ne jamono noonu la toll. bu njëkk pour nga wax rek di nga toog une semaine doo mën a wax. léegi bu la neexee mën ngaa toog fii <laughs> léegi wax àdduna yëpp jot kon nag il faut ñuy comprendre loolu. di xam ni acteur boo ko nekkee da nga war a am acteur la. buñ la simeekooloo nga simeeku. suñ la defaloo ay shooting nga def ko. suñ la defaloo open press nga def ko. loolu mooy tax combat bi day jaay boppam day jar boppam. loolu moo tax man ñaari combat yi remarque boobu laa ci def quoi. remarque boobu nga ce que pour tëj paas boobu mën saison bi ngay dëgmal incha allahu rabbi yàlla nañu ko fekk tal ko bàyyi ci wàllum ay signature contrat wala boog lu mel ni open press yooyu ngay wax ak shooting yi mu bokk ci contrat yi ngay signé ak mbër yi. waaw xam nga loo gis rek dañ ciy jàng. yu bari jàng naa ko ci. ba tax na contrat yu bees yi maam nii ak mbër yi. yëpp dugal naa ko ci. def naa ci danga am droit de shooting. Mhm. da nga am droit def open press da nga am droit def face à face da nga am droit def dernière face à face yokk ci yeneen yeneen yoo xam ni bokkul woon ci contrat yi mu la doon jox soit que boo ñëw di ko signé si dañ la ko leer ba mu leer yaa xam même booy def open press ñett nit di fa nekk di nga ko def booy def shooting di si meegu di nga ko def boo ko deful lu nekk am na lu la ciy fekk comme ñoom boo deful loo deful ci këyit rek pour ñu may la ko day metti mais yàlla suturaal nañu ba bii contrat yëpp def nañ ko ci ay këyit pour ñu mën ko comprendre ñun ñëpp. pour ñu comprendre ko. Hmm. salari jiin bismillahi ma dee ci door maam góor gi Njaay sëtub Maram